waaw mais kii mooy Ousmane Bongo. tey nag temps amul. yaa ma gën a xam Tura laay Tura. yow yaa ngi Sidi la ah. Tura laa xëy door. Tura ma koy door léegi léegi ñoom Tura la lay door. Tura laa xëy door. ah kon baax na. donc gars yi mi ngi noonu match bi tàmbali na ci diggante Ousmane Bongo ak ki nga xam ne mooy ah Sidi Diop moo taxaw ne dëgg bal bi Sidi Diop nee na moom militaire lay football nee na moom day jël milieu di séddale nabu eh, nabu tey du yomb de. eh mais tey match bi dafa ala daw mais. waaw gis nga Sidi Diop dafa dëgg bal de. jëlal jëlal jëlal te nag nabu lu ca gën a grand mooy ah, faramaare ni dañuy dëbb fële suba teel di dëbb fii. ah foofu eh, teg eh, ah, baa ngi nee di wàcc. Waly Seck gi nee Waly Seck mu ngi wàcc ñu ne léegi mu a nii. daal li nga xam ne moom moo di Sénégal Japon tey daal nar a mokk. mokk mbax mais yàlla kay gars dañoo nar dëbb fii. non tey moom ku bëgg gis people dëgg ñëwal. ñëwal wéy ba ñëw na dëbbal dëbbal. dëbbal dëbbal mokk na fi mu ne nañ ko moo da ngay seet lii rek donc match bi tàmbali na mais daf mel ni ba dafa taxaw. Ousmane Bongo nag nee na moom mooy doo trois fii mais maa doo doo dañ seetaan. ñu xool fa wànnante di mujjee gëttam. waaw loolu am na solo te jékki moom. ah mais jékkee ngi nii mais jékki moom sànq ba léegi moom nee du may. si mooy manager bi Sidi Diop. du may ki nga xam ne moo di Ousmane. ñoom ñaar dañoo niróo kif kif ñoo bokk benn taay. fekk na <laughs> waaw naa jekk lu mun mooy bind contrat signé ak ak lekk pourcentage pour ça dëgg la. non parce que doo nit dara. bal ngay dox am njaay joxal job bi dosaar rouge bi équipe Sidi Diop ñooy paasante seen jox na Pape Cheikh job bu perte perte la ak jéggi dugub na da ngay dem ca kaw jéggi ngay accéléré. ma di jékki mën na dara de. jékki nii daf ñu nëbboon bopp. ndekete du ménager rek la mën na mu ngi noonu voilà gis nañu récupération parce que xam ne équipe Ousmane Bongo bi. voilà góol bi jóg na ci balu ci kaw. voilà mu ngi noonu équipe Ousmane Bongo bi ñu ñoo def li nga xam ne moom moo di yaar muy récupération boobu donc. mu ngi noonu daal c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne. daal doy na waar même ba ci football sax moom la am na dina doy waar bu waar waaw waaw waaw dina doy mu ngi noonu mbokk internet yi di bëgg lu leen dimbal xamoon ci soo gis moo nekk loo xam ne dafa yëngatu parce que dama ngay football bi xaw ma nu mu xaw ma ne leen tey bas moom lépp lay wasaare. mu ngi noonu daal mu ngi noonu. mais Siré Ndom dafa engagé de. moom dafa ñu milieu terrain nekk waaye day gën a yëg waaye attaqué la waaye xaw ma suñu football de. football football mu ngi si micro yi par exemple moo tax ñuy yéeg di jaawale million bi ci kaw Bravo, bravo, bravo.

Sidi naka ci jour la centre Sidi bi baax na Ahali, ahali, ahali. Thank you.

jee mango maa la ñaan ko Siré ngi noonu Siré nag seeraar nga def ko mu dëgg dal parce que nee na militaire lay fool waaye émission bi daal su mën a jaay yéen saa def ko xam waaye mën naa yore moom moo moo xaj ko wat si mbile bi na ko nañu jël boo xoolee ca mu ngay dem. marché bi fi mu ne nii. Uh-huh. Uh, dafa dafa dafa xaw a équilibré. waaye uh, bongo maan. waaw moom lañ mënee bongo maan la suudu mënee ko. ak suudu nga ne moo sol mbaxana bi nga xam ne moom la basket boobu. waaw parce que nag mooy topp mooy kaayoo suudu jël am na tur bu mu ko utal. mooy mooy zéro si mbaa boobu doole. mooy zéro si mbaa boobu. nee nee na Sidy foog naa ne Sidy Diop foog mu foog mu foog mu fent tuur. Ah, waaw nee na foog Sidy fent tuur waaye nag man Sidy li ma jaaxal ma si moom tam leen tey ñaari bol la dëgg ko. def na benn passe def na benn passe def na benn passe si nee na mu milieu terrain la waaye daal attaquant lay gën a wóoroon attaquant lay waaw gis nga suñu beneen naataangoo nee na mbaxane chantier kee moom nee na moo siy jox ay xarit Ousmane ngay jëm parce que Ousmane dafa doon ngay jëm. ngay jëm Ousmane booy ay eh, booy tamit nag booy ñaar tali benn tali la. ah Grand Dakar ñaar tali Grand Dakar benn tali. kenn du ñëw. waaw dañoo xaw a saay saay rek waaye. Ah! kenn du ñëw ay eh, waa MC benn. oui. ah ëpp na. Ah, li nga defal kenn tasaare bi waaw ndax est-ce que gis nga li ma gis. loo gis nekkate waa ji rasamaan yi daa yem ba ca poñ yi ma nga la di daaw. aha aha luy aha luy. kii du sëñ Maodo du bokkaate kii kay. Ousmane Ousmane Ousmane. ak rasta yi ñu tënk ko suñu papa jooju nga xam ne suñu gars yi waaw waaw moom moom suñu papa la dañuy dégg suñu papa maam góor suñu waaw waaw di ko jaali suñu maam jooju nga xam ne génn na àdduna yal na ko yàlla yërëm di ko jaali suñu copain Talla Jazaga Talla Jazaga mais dama ne mais dama ne maam góor ah maam góor pare na di na rasta takkaat na ko de gis nga xoolal. aywa kooku moom mooy waay. ok Saar Vier mi ngi essayé day dóor de day xam nga benn ne Ousmane Bongo bu baax la woon. waaw dégg nga li ma wax nee naa Ousmane ñi bi ñooy Bongo man. non non est-ce que du ANG bi. ah bu xam nga rassemblement yi nekk nii bu doon xeet dafa bëri nañu. déposé déposé. déglu Sidi gars yi dañu wër Sidi pour jox ko Sidi day laaj bal bi mais Sidi li muy génnee moo def yenn saa yi mu tax bal bi fu ñu ñëw di ko xoolal day fekk na. moom mais bu ñu trois yi mu waxoon da ko confirmé. waaw amagul na te fii moom sax day félicité waaye si wax rek bu ñu bëggoon mu daw dem tàcc. waaye bu ñu waaye bu ñu bëgg la waaye su ñu koy far su ñu leen dégg bon waaw su ñu leen def su ñu leen dégg bon su ñu leen di félicité day félicité rek bu ñu félicité gars yi rek dèjà. waaw waaw. <laughs> jox leen bal bi Sidi. jox leen bal bi Sidi. dañoo bëgg a ci Sidi jox leen bal bi Sidi. Sidi militaire lay football jox leen ko bal bi ñu reporter ci Sidi. waaw Sidi est là. Sidi eh Sidi est là jox leen bal bi Sidi. jékkee ngi noonu. jékki joxal Sidi. ko Sidi dëgg na Sidi def na dribblé Sidi ngay dem Sidi xàcc na joxe na ay waay Sidi ngay dem joxal Sidi yow. si dee nga essayé eh arbitre faute si da nga gaañu arbitre kii faute la kii bi ñooy dem waaw waaye waaye waaye waaye Ousmane Bongo Mané ñu ngi da ngay ree ma ne ko day félicité rek de kat bu tëj dënn saxat ma ne ko day félicité rek de waaye def na léegi sax naa ne waaye waaw yow Bas waaw Bas Bas moom xanaa dugg mooy. dégg naa ko def. jox leen bal bi fii jox leen bal bi fii. bal bi fii. acca tonton tonton tonton Mame Goor Diazaka mooy joxe noonu fer na bal bi Pape Cheikh defar na jékki tonton Mame Goor Diazaka mu ngi marqué tonton Mame Goor Diazaka bàyyi ko dara tonton Mame Goor Diazaka la mooy noonu tonton Mame Goor Diazaka suñu jaay Mame Goor ñu toon ko suñu jaay la Jekki mooy manager bu Sidy Diop bu Jekki bokk bokk ci moom la maa ne Sidy Diop la bokk Jekki ci Sidy Diop la bokk. mas ko kilim la wax noonu da ngay tooñ. lépp yaa ngi nekk fii di nit dara. li ma woon yëpp dem na. eh Ousmane Ousmane daanu na Ousmane daanu na. acca da ngay ñëwee da ngay ñëwee tulli na sa kaw ñu la ñaan tulli fili na ko. fili jëloon ba waaw waaw waaw waaw mu ngi njaam nag mu ngi njaam. mu ngi njaam njaam solo. waaw parce que waaw parce que deux zéro nag maa ngi njaam. dafa war a njaam nag. ci lamb ji boo demee. yenn saa bii ngay maye njaam solo. njaam solo waaw. moom la moom la Sadio Mané di maye yenn saa ci terrain bi football bu demee. fii xam naa day seelaat Sadio Mané nekk sama Sadio Mané. waaw waaw moom la ko. ah lu. waaw bongo maan day essayé waaw bongo maan. waaw ca baax ca poto wala daal ca poto wala ah ñu nga ñu nga essayé. ah mën na def jàmm jàmm nawetaan ñu ngi doon bal rek nga xam ne jàmm nawetaan

duñu bàyyi ñu yeggali lii. kii reportage am la xam naa commentaire. waaw équipe bongo yee ak Sidi yee ñooy football. acca Sidi def na poitrine. Sidi teg na poitrine defar bal bi contrôlé jox. waa gars yi acca ñu ngay sa waaye contrôlé na wàcce bal bi dañuy xaw jékki jékki moo koy laaj waaye joxul jékki mu ngi dribble day essayé dóor day war a suudu lay wër ndax dañoo bëgg na ko dina ñaan tegal mu dugg su la porte la bàyyi la borom tur bi sol la moom li ngeen si ñoom la dafa ci na looy essayé bas bas boo ko xamul léegi boo ko yee ak a bëri ay rafet waaw lay rafet acca Sidi yee Sidi joxe na. Eh, nee na passe amagul def. nee na passe amagul moom day ragal rek ragal rek la fi nekk. Sidi moom day ragal rek. mu ngi félicité amul day ragal rek. moom fi mu koy mu ragal taxaw. tey sa ndamu jolle ba la ko jàpp. waaw amul solo yëpp. la eh, suñu frère <laughs> ba parce que daal la ko di biram gaañu naan petit buya buda aca Ousmane Ousmane Bongo waaw Ousmane mer na ndax moom lañ mën a ñaari bal ci dara faawu mer waaw ñu ngay essayé ñu ngay essayé ñu ngay essayé ñu ngay essayé ñu ngay mu ngay contrôlé mu ngay contrôlé ah mu ngay essayé kali na kali na oh. mu ngi koy doon te journaliste ya journaliste yi defuñ na dara dañuy liggéey jékki laa ngay doon dara dafa ngay doon jékki mu ngay xel xel yi nag bon neexu ba neexul nag rek jékki nag ne 10 pour cent mais jëloon jaabu jékki bi mu dóoree bal bi gàtt bi gàtt maa parce que yow yow yow parce que gën a gàttaay jékki bi comme ça gàttaay bi yéen ñaa ko mu ko suuf jékki bas de ñoom ñaar xam naa ne bu seen un mètre ba acca comme double décimètre. bongo yaay bongo lañ xam nag bongo yaay ak al bongo yaay suñu yaay ak al suñu yaay. waaye waaye nag bu leen fàtte nag ñaari match la bu ñu ñeetee fii dañuy ñeeti fële. borom ñu waxee da ngay woote kenn xamul la lay wax moom kenn xamul la ngay liggéey kenn xamul suñu borom kenn xamul suñu naan suñu borom la yor la jëli noonu ndaa trahir ma fiyaa mu ma ko door mu ma ko door waaye